di santaat suñu borom bu baax a baax ci kàttanal gi ñu kàttanal ñu dellusiwaat ci plateau bi di ñaanal baax sunu yaakaar te ëllëg muy Serigne Sidil Mokhtar Mbacke di ñaan sunu borom doolu ko fa yàggal lool te mooy ko ak wér ba yéeneem ci léegal Serigne Touba lépp sunu borom kàttanal ko ba mu def ci lu kawe njortam di ziar bu baax ak a ñaanal mboolem sëti Serigne Touba yëpp nag nekk noonu la ñuy ñaanale Serigne Mountakha moom Serigne Bassirou di ñaan sama borom kàttanal ko te may ko ak wér ba pas-pasam ak yéeneem. ci liggéeyal maam ju baax jooje sun borom kàttanal ko bu baax a baax di ziar baax sëriñ Cheikh jëmm Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall Bayo Mouridine di ñaan tamit sun borom dolli ko fa yàggal bu baax a baax ba yéeneem ci liggéeyam liggéey bi mu sóobu ngir liggéeyal ko sëriñ tuba tam jële woon ko ca way juróom bu baax wa muy sëñ Mudu Saafal mu jële ko ci bàyyam ju baax ja di maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla neen sa borom kàttanal ba mu def ci la kaw seen jort di ziar bu baax nag mboolem sëti Cheikh Ibrahima Fall yépp nag bayuñ kenn ñi ngi ziar bu baax mboolem buntu kër njabotu mam Cheikh gi yëpp kenn ku ci nekk rek nga xamne tay fi nga tok sa wayjur mo la fi bayyi ngir nga yeggale liggéey ba nga xamne ne soobu nañ ko doon ko liggéeyal Serigne Touba ta du mat mukk ñu ñaan ci barke Serigne Touba yalla nañ ko àggale ci sago ci barke Serigne Touba Cheikh Ibra Fall di santat bu baaxa baax nak ci mbokk yi nga xamne ñi ngi bayyi xel bés bu yalla sekk sak ci talata ju jot ci waxtu wi moy 3 h ba 4 h 30 ci seen jotaay bi nga xamne dañ ci top njangalem Cheikh Ibrahima Fall waaye dañ ko toppaat ci guddi gi itam chaque àjjuma bu jot ci 23h30 jàpp 1h du matin di ñaan ci barke sëriñ bi liñ ciy topp lépp yàlla nañ ci dajeek ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine di sant bu baax mbooleem nag eh, ñi nga xam ne ñoom lañ seexal jotaay bi ku ci si ne signaline ba dërën dim di Baye faal di jàmbar dëgg waaye tey ñu am gan gu tedd koo xam ne sunu wayjur la eh, sunu magum taalibe la di Baye Fall muy Baye Càmba Càmm mi nga xam ne ku ko dégg xam ko ci gëstu ci maam Cheikh Ibrahima waaye xam ko itam ci doomu Cheikh maam mooy baayam toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall ay waajuram toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall tey nag ñu di ko ci suñu plateau bi Jazboul Mouride nga ñu fas yéene waxtaanee njàngaleem maam Cheikh Ibrahima Fall ci tolluwaayu jamono fii jamono ji toll tey nga xam ne dégg na yëngu yeeg xeeti tawat yeeg yooyu yëpp tey daanaka lëmbe àddina bi ah, Sénégal nag fu ci bëri tey eh, ñu ko fa tudd. nga di ko fi dégg tey nag ñu fas yéenee waxtaane lenn ci loo xam ne ay gis-gis la yu yàgg yoo xam ne Cheikh Ibra defoon na ko ci dénkoon ko itam mag ñu mag ñi yàlla dogal na ñu ci bëri jóge nañ fi waaye ñi ñu fi bàyyi ñu denc ko ba néega ni ñu warat ko waxtaane ndax yegg si nañ ci jamono ja taxoon Cheikh ba doon wax moo tax tey ñu fas yéene waxtaane tolluwaay euh, di wax na nag inna lillahi wa inna ci soxna su tedd soo xam ne yaakaar naa ne ku ku ndakaaru diggante ndakaaru ak Touba wax na du fi ump kenn muy soxna Xadi Bayo muy koo xam ne jàmbaar la Baye Fall la bokk ci njabootu Serigne Assis Fall moom Serigne saa Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine mu doon sëriñam mu doon léppam su borom dogal mu génn àddina ñu doon ko ñaanal démb ñu ngi ñaan sa borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem Eh, muy ku fonkon turu yàlla lool nag ba yaakaar naa ku ko xam ku ne ci moom nga ko xamee ñi ngi ñaan nag ci barke sëriñ bi tur woowu mu fonkoon yàlla na ko oh, teeru te teral ko ci barke sëriñ tuba ak jàmbaar ji nga xam ne ba su set moom la daan doxee moom la daan waxee muy maam cheikh ibrahima fall baye mouridine defe naa kooku ku jël sa lépp jox ko sam xel war naa dal bu baax a baax kon ñu koy jaale ak njabootam di ko jaale ay wayjuram waaye di ko jaale itam sëriñam bu baax boobu moom mooy assis fall moom sëñ Moussa Fall moom maam sëñ Ibrahima Fall Baye Mouridine xam naa incha allahu sax du ñàkk lenn ci ay lenn ci ay kàddoom yoo xam ne danañ ko taataan donte na ay minutes la sax ngir mbokki taalib yi koy xool yu koy seetaan ñëpp mën koo ñaanal sama borom yokk ay leneen tasu ci barkeem euh, di fàttali bu baax ndigal loo xam ne dafay rot léegi muy Serigne Mountakha moom Serigne Bachirou Mbacké moo am ndigal ci Cheikh Sidine Mokhtar dimanche bii di ñëw day ñëw Massalikul Jinaan fii ci jumaa ji tàkkusaan muy wax ne mu ngi sàkk murit yëpp ñu ñu tertu ko fa ndax am na ci ndigal kii fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Sidi Mokhtar dimanche incha allahu tàkkusaan dina ñëw fii ci Masalik ci jumaa ji ñuy ñaan murit yëpp tertu ko ñuy ñaan ci barki Serigne Touba Cheikh Ibra Fall rek yàlla nañ ci dajee ngëneelal Serigne bi kon dañuy jox bàyyi càmb mu nuyoo ñu jox siñaalin badaran di mu nuyoo ñu doon tàbb ci waxtaan bi bisimilah. aouzu billahi min sarri seytaani rajim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألطف به في كل تيسير الأسير عليك يسير أسألك تيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة noonu nga ko waxee rek ñu ngi nuyu bokki taalibe yëpp bokki murit yëpp rawatina bokki Baay Faal yi cee ñaan Seex Sidi Muxtaar yal na fi yàgg lool te wér yal na fi yàgg lool te wér di ñaan itam seen seex jëm bi nga xamante mooy sunu buntu seex Ibra nekkal fi seex Ibra mm-hmm. di ko ñaanal yàlla sama borom mu yàgg fi lool moom itam tëwér mm-hmm. ak mboolem bokki taalibe yëpp mm-hmm. ak mboolem kilifay diine yëpp ca ko sëriñ am di jëwriñ sama sëriñ maa ngi ko bu baax moo sëñ Mbàkke Fall yal na leen yàlla may ak wér ak kanu gudd jërë ngeen jëf jërëjëf Baye Thiamba jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu Seydina Aline ñu jox la kàddu nuyoo dafa mel tey am nañ gan moom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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki téléspectateur euh, mbokki euh, auditeur kon yi ñuy teewlu ci seen euh, rajo télévision Lamp Fall di am mbégte di teewaat ci jotaay bu am solo bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall di Jazboul Mouride di ci ziar bu baax a baax nag Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké mi xalifa général des Mourides ñaanal ko suñu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wër noonu lañ koy ziare Serigne Cheikh Jëmb Fall ñu toog jotaay maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak waaye te di ziar tey ñaanal bu baax Serigne Cheikh Ngounda Fall muy suñu bunt si maam Cheikh Ibrahima Fall ñaanal ko Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér. di ziar bu baax a baax nag Baye Thiam Thiam mi nga xamante ni euh, bis fekk nañ ko fële si euh, Tivaouane Pël. Mm-hmm. wax dëgg yàlla muy euh, kon magu ta magum taalibe di suñu jëwriñ di suñu Serigne. Mm-hmm. teertu ñu teertu bu am solo bëggal ñu si maam Cheikh Ibrahima Fall. tey li ni mel kon moom la ñu fas yéenee kon tegaat ko fii bu ko defee mu séddoo mboole mboolem mbokk penc mi mbokk yi nga xamante ni ñu ngi teewlu di ko ñaanal bu baax a baax suñu borom defal ko tawfeex di la ziar bu baax a baax Serigne Mamou ñaan suñu borom may ñu dégg ak topp barki maam Cheikh Ibrahima eh, jërëjëf Seydina Aline jërëjëf Baye Thiam ci bu am solo boobu mm-hmm. xam naa comme ni ñu ko waxee woon léegi rek bi ñuy ubbi eh, soxna Khady Bayo moom la ñuy doollee ñaanal bu baax a baax suñu borom doollee ay leeram Euh, te taas ñu ci barkeem euh, te sama borom xaare ko àjjana ci barkeem Serigne Touba Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine xam naa su fekkee na waa régi élément bi jàpp ne dañoo ànd ak euh, mbokki taalibe yi ci doole ñaanal soxna su tedd soosu nga xam ne léppam sëriñ bi la woon Seydina Ali mu doon jàmbaar dëgg ci turu yàlla te ñëpp ràññee woon ko ci nag xam naa dinañ ko gis léegi si image yi dégg kàddoom ngir mm-hmm. ñi nga xamante ni rek gën a a xam soxna soosu mm-hmm. nga xam dundam gépp daf ko jeexaloon si diggante Serigne Touba ak Cheikh mm-hmm. moom euh, euh, ku moom si jotaay si jotaay yooyu dañ koy dajeex moom wax dëgg yàlla moom ak bëgg euh, yii woon loolu wax dëgg yàlla bëgg Serigne Touba bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko comme Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima teeru si àjjana gën a kawe bi jaa Cheikhul gën a yokk ay leexam ñàkkul ni waa régie incha allah dinañ si ànd si image yi bu barkeelu bu dee ñaari kàddu ci euh, li nga xamante ne daan na ko yëkkati. Mm-hmm. bu ko defee ñu mën a dugg si waxtaan bi. waaw tubaarkàlla ah, di bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne bés yàlla sàkk ñuy bàyyi xel Jazboul Mouride ci taataan li nga xam ne tey mooy seenu seenu bëgg te mooy Cheikh Ibrahima Fall. Euh, Baye Thiamba. waaw muy jamono ji yegg ci. Mm-hmm. ñu war a waxtaanee. Mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall jàngaleem rawatina tolluwaayu fi jamono toll fi ne tey nga xam ne yëngu bi yëpp bëri na laataa ñuy ànd ak waa rési ci élément soxna xat yi mhm. su ko defee eh, fii jamono toll dafa mel ne Cheikh Ibrahima indi woon na ci njàngale mu yaatu waaw waaw ndax dégg naa ci ku naan wax maam njëgi juuf tuubaatul bàyyi njaga juuf tuubaatul tuubaatul sama wëlëraw maam mukkura ndaag la woon nga dëkk tuubaatul ñaa ya, ànd ak seexale ci la bokk ab taalibim la woon dégg naa ma wax ni jamono ngi ñëw day doom ca kanam mu ne seex ibra nee leen jamono ngi ñëw ca kanam cuuj bu nekk na jàpp ndey ja ca bokk ca téyeku bu dëgër lu ko moy dina wadd ca ginaar gi day yëlbu ci bu yëlbu ci digg lay yëlbu ci bu yëlboo bukki for ko kooku nag waxin la gin la laaj bukki yi bari na ndax li tax bukki yi bari na wootekat yi bari na ca Seex Ibra nee na mën a mën a mën a joo gis du fa du fa du fa du fa joo gis foofee la danay jàllale seeni mbir ñi xëcc yoonu Baay Faal di ko wuyoo ko yëngoo dafa bari waaye nag dégg na nañu yonent bi wax ni taxrifooni xabla an taxbudooni wa in foo taxrifooni fa kayfa taxbudoon heureusement ba yonent bi waxee loole looy dugg lu ne na ko xam kon bala ngaa jaamu yàlla danga koy xam boo xamul yàlla noo koy jàmm kon bala ngaa dugg ci yoonu seexi ba laajteel jàngal ba gis lu wér teg sa tànk waaye dugg lu jóg rek yóbbaale ndax Sëñ Abdou mbakki Mbàkke yal na yàlla yokkal na ko leer te taas na ci barkeem daana wax ne am murit dafa war a yore jikkoy xob bu tooy xob woow dafa ko ngelaw fekk yóbbu ko waaye xobu tooy fa la koy baax waaye nag la dugal xob bi ci biir pax mi du ko fa génne kon nanu xalaataat Seex Ibra waxat na lii waxat na ne ku aju ci man na boole yar mm-hmm. ak i teggin mm-hmm. ak nangoo liggéey mm-hmm. ca nangoo joxe fu sa bët di wërta xool bu mu ko xool lu sa nopp wërta dégg bu mu ko déglu fu sa tànki wërta dem bul fa dem ci génn nag di jëfandikoo ay alxuraan boobu yàlla wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu asbiru wa saabiru wa rabitu wa taqulaa la'allakum tuflihoon ma tënkale ko ci wolof jàppalante leen te muñ leen te ci dimbalante ndimmal nag ak jàppalante ak muñ lente ma tënkal ko ci ñetti baati olof liy dox ak bokk lislaam ñetti cër rek la ca dara amu ci kawar testeen mi dox amul kawar loxo bi làmb joxe amul kawar làmmeñ yu wax wax ju yiw amul kawar kon aaye dikk na ñu muñ te jàppalante te dimbandikonte te nekk benn segam bëgg na noo taxe yal na ci yàlla jàppale na lii seex bi la waxat na ko jamono jii nag dafay jamono joo xam ne mbubboo Baay Faal dafa yomb waaye Baay Faal lu jafe la lu diis la du ko jóg doon ko Baay Faal laa Baay Faal laa yow sa ji mbiri keleng taxut nga di bàyyi Faal ndax seex bi daawu ko def Cheikh Ibrahima njañ la daa baaxoo njañ ca njañ la ko andi woon yen bi ak gor gi mi daan gor matt mi di indi ak root mi ak buub di tuuri mbuubit mi ca àll ba moo tax mu daan def njañ ngir bu amee njañ bu ci tegee eh, teeñ bi maanaam eh, deru bopp bi du ko yëge noonu bàyyi Ibrahima Njaay barakatu ci njaareem Nenama, ma da ko daan jart man xam naa ko moom bàyyi Ibra Njaay bëri ko bokk na ni jotaay ba tey daan jart kawar gi ba mu rafet njañ wi ba pare kablin ko sikkim bi weex tal waaw kablin eh, loolu ñuy wax aniwu moom la jigéen ñu tuddee aniwu kablin ko boo kablin day rafet lool Baay Faal daan rafet te it maa ngay xamal leen sama maam jeecaam njaarim bokk na ci naan léttoo tànki seex yu rëy am ñeeñam la woon mm-hmm. da ko daan létt mm-hmm. nee na Seex yàlla may na ko xëy bu boo xam ne boo ko nee jàkk doo ko yab te boo toogee moom doo ko xeet mm-hmm. ca bu jëfee nga naw ko noonu la Baye Fall war a mel waaye man de Baye Fall laa wax lu la neex wala dox lu la neex wala sol lu la neex kooku war nañ koo moytu am na benn bis maa ngi si daan benn télévision du mu tudd tur télé bi am naa lu ma naqare lool dama ne sama doom j'appelle ma feneen yëkkatil kàddu waaw dafa am benn bis may seetaan télévision. Mhm. télévision boobu du ma ko tudd. mu mhm. ma gis ca lu ma naqari. Mhm. ma ne sama doom zappel ma télé bi sama soxna ne moom da woon bu ko làmp faal rek. foofu rek lépp lu muy seetaan. te sama doom yooyu dafa vacances yi woon xam nga lu tax. dama faa télévision bi koo xamante dañ koo wane rek. mu ne man Baye Fall samuraay la muy moom Baye Càmba. samuraay ñoo nekk Chine. chinois yi ñooy def samouraay ak japon ci ay giir la ndax samouraay boo demee sin wala Tonkin wala Phnom Penh ci biir saygon ñoo ñooy def samouraay Seex Ibra nag moom talul samouraay li mu tal mooy liggéeyal Sëriñ Tuubaa déglu ndigalam bàyyi tereem moom la digal na ku di Baay Faal Baay Faal nan ko xool bu baax lu ko jóg amul Baay ku Seex Ibra waa këram ak ku Seex Ibra seexal ñoo ñoo di bàyyi Fall Baye Fall kenn mënu ko am nag ku dul Serigne Touba mi am Seex Ibra kenn doon tub Baye Fall it lu dul ku Seex Ibra seexal sa maam mbaa nga nekk sa tub Seex Ibra mbaa nga doon doomi Seex Ibra nanay ràññee Baye Fall du ko jóg doon mu des yar bi Seex Ibra ku ku bëggub yar la. wala ngaa mais incha allah ci kanam tuuti jombu danañ ànd ak élément Soxna Xadi Soxna Xadi Baay ngir euh, dolli koy ñaan bu baax a baax a baax suñu borom yokk ay leeram fee mu tëdd tey mu dàqal ko fii mu bàyyi ko euh, waaye mel ne ci kanam tuuti waa université lu ci mel ne sëñ sëñ Bamba Ndiaye euh, sëñ Lam Fall Mbor sëñ Mambay Sillaak yi nga xam ne ñoom i tamit mhm. ñu ngi fii ñu ne mhm. ñu ngi taxawal dëgg dëgg dëgg dëgg nan mooy melokaanu Baye Fall ak nan la Baye Fall war a mel ci kanam tudd danañ ànd ak ñoom yal nañ mm-hmm. nii ma la ko waxe mm-hmm. noonu rek la mm-hmm. dégg ndigal bàyyi tere jëf ci seexul xaddim la mu santaane won ginnaaw mbooleem lu mu aaye buñ ko kenn seen du sol bu mu takk du njaxas rek modi di fa du rast rek modi di fa Cheikh Rafal musa sol jaxas amna ci luma leer li sama maam wax nako li ba Cheikh Ndiaye yennu nan mon gën na mako koo mom Serif hasan Fall yal na yàlla yokk leeram ca na ci barke li nga sol de Cheikh bi ko sol sol palman col gu rafet kuy silvisé moo la gën a silwise bu ma ni pël ndar ñu bay leen ko daan topp ndax silvisation ba boo ko gisee bëgg ko ba pare wek ko kooku la wax safa faale dafa safoon nit ñi ba pare nit ñi faale ko mhm. muy aman xëy ba mhm. da daan sol palman gital mhm. rombal mbànd kaalawa samba sembe jël ay téere yi nga xamante ni ñaan ko sëñ mi daan yónnee mu di ko def ay meeteel nii mu jekk lool daan ko ñëw ñëwub jàndanke caaye sooñ dàll yoo xamante ni saraxule ñoo ko daan liggéey maanaam dàll jàndanke su nee pël boo ko ne jàkk xam ni Seex Ibrahima ngi bëgg ko lool xam ni jullit piir ngi nii taalib sëñ Bamba dëgg ngi nii te boo ko xoolee da koy bëgg noonu la Baye Fall war a mel waaye Baye Fall yi léegi daanaka ñi ci ëpp bul faale lañu bëgg a jël nag ñi nga xamante ni ñoo nekk les îles de Caraïbes mu ay jamayk mhm. jamaïcain yi mhm. ak antien yi mhm. seen rasta yooyu bëgg koo indi fii di wan ne Baye Fall nu ñooñu duñu sunu lenn duñu seen lenn sequnu Seex Ibra dara Baye Fall day civilisé te nu liggéey Seex Ibra yelwaan loowul kenn da daan liggéey tubaab yi Seex Ibra bi mu nekkee këram bi nekk Thiès tubaab bi dañ koo bëggoon demal nañu ba nu wax ne liet naa si Ahmadou Bamba la laaj ma lu tax pastéefam ak mm. fullam ak nungoo liggéeyam ama nay tool li wax daaru bay de dafa daan fay bay ay fruit mm-hmm. guyaat mm-hmm. mango mm-hmm. citron loo yaakaar ne du ko fa bay dina ko fa bay njaay mi daaw ko jaayloo kenn moo daan gérer njaay mi waaw moo ko daan seede taxaw ko dara du ci sikk yóbbul sëñ bamb kon béy gerte la ak mboolem xeeti pepp yi mboq gerte dugub suuna saaño foño lépp laan béy ngir lan bu ndigal sëñ bu jógee bu fekkente ne xaalis a koy jëf rek mu fekk ko fi su fekkente ni daara yi daara yi sëñ bi tok nga ba xalaat ne ah bu suba kat bo boo tud nan reere ah, ah, beewu ñul mo moo mo moo xewal beewu ñul moy ñuul mu suñu ko def na baay moom banque sëñ tuwa la woon banque kooku ministre de économie finance am lawon leppam lawon la yaa ngi dégg ni la yoonu Baye Fall di doxé kuuram gi ñu ko bari di ko ci roy ah dëgg la de way aw yet lañ ko xaman benn balamaan bala ngay egsi sax ci digënté boobu li nga wax ci liggéey bi légui waaw ñu fàttali ne Seydina Alioune yaakaar naa sëñ Saliou Ndiaye bis bu mu fi mujj teewee waxoon na ne cinquante boutiques sax Cheikh Ibrahim amoon na ko ci waaw ci laa jëm boutique yooyu këri hectare boutique yooyu kay kooku fonkoon liggéey la boutique yooyu mhm. ci boutique kër Cheikh Ibrahim. Mhm. kër gi ci boppam tata la woon boo xam ne tubaab bi dem nañu ba xam ne tata la boo xam ne kenn xamul buntu bi ci boutique bi mooy buntu bi da ngay jaar ci boutique bi jaar ci biir kër gi caaxaanut caaxaan lu wut fa wut lu wut nanu seetaat sunu bopp bala ngaa dugg ci Baay Faal na ko jàng ba mu doy la nga dugg te wéyee buti yooyu taxan tubaab yi gën a fonk Seex la te Seex Ibra fi gën a baax suuf ci Sénégal yooyu jamono fi la dëkk muy Thiès. am na bitik bon boo xamante ni ñu ngi ko daan tudde morale porom hmm? danoo bëggan Seex Ibra da daan jaay ak sàppaa bii ngay dégg dina daan jaay ak Zavanel dina daan jaay tubaab bi dañ koo bëgg ngir lan fullaam ak faydaam ak nungoo liggéeyam ak ñàkk caaxaanam ca kenn du ko gis yàpp ko kenn du ko gis tuutal ko kilifay diine yi ci réew mi it ñëpp la amalan jàmm ñëpp a ko wegane itam déglu naa ci Baye mbay Ngiraan yal na fi yàgg te wér. na fi yàgg te wér. yal na fi yàgg te wér. Baye Ngiraan yal na fanam wi doj. te mu ànd ko wér. mu wax ni. Mm-hmm. bi mu nekkee ndar. Mm-hmm. xaritulaa biir yi mu daan lewetal. Mm-hmm. di ko jox Serigne Touba. Baye Gaye Yaali. moo daan dajji bërigo yi wal ganise yi bu paree ñu lakk ko defar ko mu baax def koy piisi perkaal lëmas ko ci dugal ci biir bàyyi gay yaali moo ko daan daaj bàyyi gay yaali moom mm-hmm. moo tax am na loolu du hasard mm-hmm. moo daan nekkan tëggab seex yi mm-hmm. ak ante yaali géy mi jur ndaak fal mu jur makkuro mu jur sama ndey ñoo bokk ndey ak bàyyi kon nii rek la mën a demee léegi bi nga xamante ne loolu amee na noonu xool ña ko faraan fekk alxaaji Maalik daana ko fekk sëñ Ahmad Saxir mbay bu ko daana ko fekk mhm. kii sëñ Tuubaa joxoon Aziru ne ko yaa may sëñ alxaaji Mun Njaay maa bii daana ko fekk mhm. waxtaane loolu am solo la mhm. ndax seytaane jóg na di mu jógee itam jógul dal ci kaw kenn ci kaw jullit rek la dal di féewale ay nit moo ne alaaji Maalik da daan fekk sëñ da daan fekk Seex Ibra Ndar xam nga am na ñoo xam ne bu leen ko waxantee ñu weddi ko ci lu wér la ku dem ci archives fii gis ko danoo séqan jàmm ak salaam wëllëreem la woon lool la woon lool ay maas la nu woon ndax alaaji Maalik ko magan tuuti nag ndax Seex Ibra dafa noon Sëriñ Tuubaa ñett ba muy ñett ñu ne ñaar muy juróom-ñeent ñetteet la ma magi ñetteet la may tër bi ñetteet la may jiitoo jinaani te dafa mel ni sax bis ba fi alaaji Malick jógee Cheikh Ibra def na waxtaan wu siiw fa gébb waaw ndax gébb Fall la ko fekk am ku ne alaaji Malick li jóge na fi mhm. moo kon ku yoratu yoon wi mhm. Cheikh Ibra fël làmmeñam fël gémmiñam ni ko mhm. sëñ Bàmba day ñëwunu fi faasale ak rëbëje bi alaaji Malick ñëwagul ku yoroon werdu tiija ku yoroon yoonu tiijaan Cheikh Tiijaan almaktum yal na yàlla yokku ko ci taas na ci barke ca faas ba mu ca jógee mm-hmm. kam ko jox kooke kam ko jox kam ko jox kooke kam ko jox dikk ci Seex ah, Omar Fuutiyu Taal ko daada maayisa mm-hmm. ba ko jox ah, ah, Alpha Mayoro mm-hmm. Alpha Mayoro jox ko ab jarbaatam nga xam denc la woon kon kay kon ba fa seex jógee kon xanaa yoonu fa lay yem nitu yàlla yi duñu samp loo xamante ni li gën a da koy fel nanu def ndànk waaw Cheikh Ibra mas na ko wax nee na yéen na ngeen a moytu de diw doomi diw samp mag la de gone du ko fel gone ko fel ni uy bu nu wéti naa la ko wax diw doomi diw moo fee tubaarkàlla Baye Samba am na solo dafa mel ne sax doon na misaal ci diggante jëm ab jëmb waaw ab jëmb ni muy mel ci ak toolub suuna ni naa féq yi nag ñoo ngi tax a jóg leeral ndaxte ab jëmb boo ko ci toolub suuna bu tollee ni da nga ah sama suuna ci da rafet na kal waye bu góob jotee rek nga ñàkk day tas yaakar borom tol day tas yaakar borom tol na feqi nag ñi ngi ci l'islam la ko julli ak wor ak ajmak ak ajaratu ak àllaaji ba no mën la ko nak muy weeru koor angal sangam angal bo dem ñu tok fa di wote la la man na ne conférence conférence takusan toilette ba jekk mel noo xamante ni xeeñ sa parfum conférence bu diw ba conférence diw ba ki conférence al mel noo xamante ni moom itam tubaarkàll tubaarkàll mm-hmm. jaru ko am na fu mas a toog mooy ab jëmb mm-hmm. ak toolub suuna naa fiqi noonu la nu mel moo tax Seex Ibra leeral loolee dégg nga wax bi mm-hmm. kon ab Baay Faal daal mooy nii ngeen mel ak ñi mel ni yéen alhamdulilah lii moo di Faal ma dolli ci lenn jamono jii ñu toll jii ñu toll seex wala waxat na ci lu bari lu ci xew ca ba nu agsi ci bala ñoo egsi foofu tegal sa loxo foofu ñu ñëw tubaarkàlla am na solo Seydina Alioune eh, eh, waxtaan wi yëpp boo daanaka boo ko déggee mooy Cheikh daal comme moom la ñëpp war a waxal fii mu ne jot na nag sëkk nag ñu bàyyi lépp topp ci njàngaleem Cheikh Ibra Fall ndax yaakaar naa li ngay jot a indi rek mm-hmm. dafa tënk lu bari fi ne ci àddina loo xam ni mm-hmm. nit a ngi ciy dox di ci réer mm-hmm. te ñàkk musicien moo ko ko teg daana wax ne wax leen ak man doom maay suuf mhm. doom suuf de wax leen ak man daana lu waay buub mën naa xëpp sama kaw lu waaye gës ba mu xóot itam doom def ci sama biir mhm. waaye Cheikh Ibra nee na mhm. lu yàgg ci sama biir doom ma def ko muy suuf te suuf kenn na ko sopp muy dara waaw daana ko wax de daan na laaj naa leen yéen ñëpp baykat suy ñaan ku muy ñaan ñu ne ko xanaa yàlla mu ne fu muy dëkki loxoom ñu ne ko asamaan mun a boobu ana yaakaaram ci mu ne ko ci suuf mun a ah jël sa loxo def ci suuf maam jël sa <laughs> jël yaakaar def ci suuf bari dëkk say loxo <laughs> asamaan daana waaye yàlla ko fula de bu koy jox ndox <laughs> nee na daf koy tooyal dong waaye suuf la ko yónnee su ko defee suuf ëmb ndox mi génneel ko njëriñam na wax li nag man dong muy koo xam ne buñ ko toppoon Seydina Ali dafay mel ne lu bëri daal saafaraw na yaakaar naa dëgg la mm-hmm. xam nga surtout jamono ji ñu damay bañ sax léeg-léeg ñuy wax naan. Mhm. jamono ji amatuñu repère. Mhm. nit ñi bëggatul am repère. Mhm. waaye repère yaa ngi fi bu baax a baax. daa fekk nag yoon a ngi nii ku ko wàcc dem si ñal. yaakaar naa ne du tuddatul yoon ak ñal la tudd. jamono ji nga xamante ni. crise partout. maanaam fépp am na crise waaw. si géew politique bi mhm. Mhm. ak nu mu gën a yaatoo ndax politique ni ñu koy waxee si biir réew mi mhm. bokkul ak xëy na ni ñu koy defee nii maanaam xaxaranteeg wujjanteeg yooyu politique suñ koy wax dëgg mooy luy jëmale réew kanam kon am na crise bu baax a baax soo xoolee université li fa xew barki dem te xam naa dinañ fa ñëw muy crise universitaire ndongo yi lu jëm si wàllu xam-xam daanaka léegi rafle lépp xëy na si càkkuteef gi la wala duñ koy sàkkee wala xëy na ñu ñu war ta roy taw ñu ñuy roy taw waruñu leen a roy mm-hmm. nga xool wàllu koom crise économique mm-hmm. tey àdduna àdduna baa ngi nii dootuma waxati Sénégal wala Afrique waaye foo laal fépp ay métti si wàllu koom mm-hmm. te nag bu amee ñi nga xamante ne ñoom la seen réew gën a ñàkk doole ñoo koy gën a yëg ndaxte ñële bu ñu sowee seen bopp yaakaar naa dañ nuy waaye ca suñu bàyyi ñu daal di mooy li nga doon wax rek suñu waddee kon mu gis crise yu bari yoo xamante ni ca suñu la déggee nga wax si maam Cheikh Ibrahima Fall maanaam jëmmam mhm. ak kàddoom mhm. jàngale na crise yooyu nañ leen si mucc mhm. ndax sànq wax ngeen ba tudd boutique yi tudd ngeen tool yi nga xamante ni amoon na ko te lépp mu ko doon bay jamono joo xamante ni wax dëgg yàlla jàpp ñu woon ni yenn xeeti mbay yi si jamonoom jooju waroon naa mën a yomb waaye ay boutique ak ni nga ko waxee ñu mu daan yor yëpp jëflante bu mu doon jëflante ak administration bi fi nekkoon jamono jooju mhm. mu doon jëflante boo xamante yaa ko wax sànq mhm. ku ñu respecté la woon ku ñu nawoon la woon jox ko cër li ko war mooy diplomatie bi mu doon dox seen diggante ak ñoom mhm. maanaam wan leen ni li ngeen di politiquer xëy na dund yi waaye dina leen ko wanee noo xamante ni du leen vexé te ñooñu dinañ xam ne nii kat la ñu war a politiquer te ñooñu bu ñu fa jógee soppi seen doxalin wàllu yar bi dootuñu si dellu ndaxte Cheikh Ibrahima képp ku mu yar xam-xam bi nekk si yow tubaarkalla macha allah. léeg-léeg sax bu nu neexee ñu ne. bu mm-hmm. buñ ko dugal si wàllu baatin. Mm-hmm. ndax euh, ni mu leen koy euh, jàngale mm-hmm. si kaddu la. ak si jëmmam si wàllu boppam. boo ko ko jógee ni nga ko waxee soo xoolee xam ni kii Baay Faal dëgg la. kon nag tey jii jot na. ñu jël exemple si loolu. delluwaat si njàngale Cheikh Ibra bu ñu bëggee suñu jamono jii daal di. tubaarkalla sëñ naa leen am na solo xam naa su fekkee ba tey waa Régis jàpp nañ ci élément. Euh, soxna xar yi ak waa université mhm. mu mel ne daara ji tubaarkal la jàmbaar lañ trop ñu ñoo xam ne defe naa ne euh, ni noonu ñuy dunde foofu yaakaar naa ko ci tënku dafa mel ne coow moom xam naa ne dana wàññeeku bu baax a baax a baax daal ndax jàmbaar lañ dëgg te itam ñu ngi gën a topp ci njàngalem Cheikh Ibra mhm. te defe naa ne yëngu beeg yooyu yëpp ñoom moom bokkuñ ci daal mhm. foofu xam naa élément bi dina ñëw dëggal ko xam nga lu tax ñu junj ko. Mhm. indi ko mooy soo xoolee suñu tam bi dañ ni. Mhm. njàngaleen Cheikh Ibra si mhm. tolluwaayu jamono ji. jamono ji nag buñ koy wax balaa ñoo xool di jéggi. waaw ñu xool di ñu jege. wér na te li ñuy jege dëggantaan jamono ji mooy euh, li xew barki Dembo njaay si université euh, maanaam foofu li fay yàgg am. en tout cas ñoom étudiant wala ñun ban ko nekkee ba nii nii. Euh, front lañ ko doon tuddee. maanaam jaamaarloo bi ñuy def kii euh, comment dire policier yi mhm. front lañ ko tuddee woon mhm. ñoom seen xeer lan yor ak seen yuuxu dàqante mhm. mais soo xoolee loolu yëpp du si mais li ñuy xeex yu si bëri du génn ñett yi wala sax du génn ñaar ñi lekk gi leen di jox baaxul dañ koy xeeb wala maanaam euh, doy na waar wala seen koppar yi ñu leen di jox par weer du yi maanaam dafa tardé waaye doo si mës a gis ndongam Cheikh Ibrahima te ñoom seen daara yee ñu nekk da koy wane bu baax a baax ndax dem nañ fa barki démb mu doon ñoo xam ne dañoo génn campus social bi maanaam fi nga xamante ne mooy néeg yi ñuy dalee étudiants yi bàyyee leen ko mhm. te pourtant seen xarañteef ak seen i not mhm. condition en tout cas yi war a tax ñu mën a am chambre yi am mhm. nañ ko ba mu mat set waaye dañ leen kaa bàyyil dem sa wetu terrain ba fa nga xamante ni maanaam xeetu mbooy la kenn tabaxu am mboy la waaw def ak daara goo xamante ni soo duggee da naan fii yaa ngi si yenn daara yi sëñ bi Cheikh Ibra sant sampoon bi waaw yamuñu foofu Baye Thiamba ndax li ñuy xewloo di restaurant yi nga xamante léeg-léeg mooy waral coow li ñoom dañuy bàyyi ba dongo yëpp xewlu ba noppi ñu gàddu seen benn kër mhm. dem xool desitu dongo yooyu mhm. ñu jël ko ñëw xew te pourtant jàng fu mu jotee mhm. kenn du leen ëppale nag te fu grève dégg jotee kenn du leen si dégg bu ñu seen jumtuwaay mu manqué dañuy cotiser seen biir seen seen ñaar dem defal seen bopp kun xaaruñu dara si nguur te fi mu ne nii ñaata ñoo génn si daara jooju tey ji yor ay lijaase yu kawe yor ay responsabilité yu kawe donc yaakaar naa ni mhm. loolu dalay woon ni njàngaleem Cheikh Ibrahima la lañ topp ba problème boobu ñu daal di koy réglé mu woon la bu ñëpp defoon ni ñoom mhm. yaakaar naa ni euh, coow du ma ni duñ ko dégg barab boobu waaye du bari mhm. tubaarkàlla jërëjëf Seydina Aline mu mel ne loolu pour ñu gën ci am lu leer dañ leen di bàyyi ak ñoom su ko defee nu waxal seen bopp li ñuy dund foofu ci li nga xam ne moom la ñuy topp ci tawfeex ji ñu am ci Cheikh Ibrahima Fall tey ba suñu borom dogal ñu ñëw fii waaye ba tey seen pas-pas boobu dara daajjiku wu ci te itam defe naa ne li leen liñ bëgg dëgg bu leen ko suñu borom defee ak Cheikh faal dana dem ba lu ëpp ci daara ji danañ dem topp ci njàngale moom ñuy jàngale ci lu jëm ci wàllu yoon wi mhm. ak akub taali euh, dañuy ànd ak soxna Xadi nga xam ne élément bi jàppandi na su ko defee su noppee ñu indi ñu waa université mhm. ci daara ju kawe jooju ci jàmbaar dëgg ci fi ñu toll nga xam ne dañuy yëngu jëm ci sëriñ bi mhm. guddi ak bëccëg suba ak ngoon euh, te itam defe naa ne naa Alin fiñ ñu toll nii sax lu mel ni Serigne Cheikh Fall kon xam naa dañuy jàll ci élément bi dafa mel ni jàppandi na su ko defee ñu ñëw ci soxna Xadi tey ñaan baax sama borom dolli ay leeram comme ni ñu ko waxee te taas ci barkeem sama borom fee mu tëdd tey mu dàqal ko fii mu jógee ñu ànd soxna Xadi soxna Xadi Mbaye رسول daara Cheikh Anta Diop ci daara muxaddimatul khitma Touba ikat mu doon mbooloo moo xam ne na ci jamono yi 2003 mu doon it ay murit yu daje bokk pas-pas ngir liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall bi loolu amee it ñu daan daje ni koy Baye Fall yépp di defee di maase ci sikkar turu yàlla ak di dajale seeni hadiya di ko yóbbul sëriñ bi jamono ji nga xam ni kenn umpalewul ni université dafa nekk ci crise te li koy màndargaal mooy tiis boobee nga xam ni euh, bërki démboo njaay rek alxames bële passé am na fi ci université ba faat bakkan am fi muy nag situation boo xam ne nii bu doy waar la boo xam ne nii day interpeller ñun ñi nga xam ni dañ fee ne di fi jànge interpeller tamit réew mi looloo waral ci kaw li nga xam ni daan nañ ko faral di def muy cant maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ni ren comme que mbir mi deme na nii jot na nag ñu taxaw waxtaan suñu biir ginnaaw bañ ñaanee parce que jullit moom amul lu dul ñam ginnaaw bañ ñaanee yàlla mu defal ñu jàmm ci université bi ñu waxante li nga xam ni mooy jariñ université bi mooy jariñ réew mi ku ci ne boo xoolee li nga xam ni mooy sa wal nga jéem koo bay muy sa waar ngir université bi situation bi mu dugg mu génn ci ñun nag taalibe lañ gëm taalibe gi du lenn dul am kilifa fonk sa bopp fonk sa moroomu doomu aadama moo tax daara ji biñ ko sosee ba léegi ñi fi ne newuñu ci lulul lii jàngi ñëw ci daara ji di waxtaan di jàng arxuraan jàng xasida sikkar kon université bu tollee fi mu toll ñun gëm nañ ni li fi maam Cheikh Ibrahima Fall jàngale suñ ko bàyyee xel mën nañoo def ay jéego ngir depuis problème bi mu amee ba léegi lu ne def nañ ko fi politique bu ne jëm nañ ko fee def mais université baaxul ñu ni nag nañ dem xool ci côté jikko yi ci côté jikko yi ñu xool lan lañ mën a jël foofu noonu loo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp te dinañ ci gis suñu bopp ñu doxale ko. ab Baay Faal moom euh, du lenn lu dul lu sell rek lu baax moom sëñ Mountakha ne nañ day wax ni ab Baay Faal mooy ki nga xam ni moo mel ni yàlla bëgg mooy jaan ju mat ba motti moom noonu la koy misaale dara lu ñaaw waruñu ko xamee ab Baay Faal lu sell lu baax rek moom la war a jukkoo ndax ñun foofu la ñu nekkee waaw foog naa ni wax ji dina bari ndax milieu fii ñu nekk yenn saa yi ñu dégg ci wax ju ne yenn saay yi tuuma bu ne ñu dégg ko waaye comme ni ko njëkk a waxee nit ñu nekk fi foog naa bu ñu xamoon li ñuy dund université bu ñu doon dund li ñuy nekk fi di dund foog naa ni jàmm dina bëri lool ñoo xam ne bu ñu amee lu ñu lekk dañuy lekk te balaa ñoo lekk dinañ fexe ba ñëpp lekk ba pare ñu dem ma jaal ñu tibbal leen ñu ñëw lekk ko ak ñeneen ñi nga xam ne sax ya amuñu ay ticket ticket yu nga xam ni kudd moo leen ko waroon assuré kon ñoom non seulement dañ koy niñ koy defee sax dafa dafa dafa yéeme mais dañuy def sax bay defaale loo xam ni moom lu kudd waroon def kon nit ñi ñu xam ni fii nit ñi dajaloowuñu fii ngir yàq waaye dañ fay dajale ngir defar te defar googu nag moom lañ bëgg a woon nit ñëpp ñu gis ko ba xam ne lii daal solution la bu nga xam ni foog naa mooy solution bi Ndiaga di wax viable et durable moom rek mooy Cheikh Ibra waaw ndax moom durant li muy dund yëpp moom loolu rek la. tubaarkàlla eh, jërë ngeen jëf jërëjëf waa université ci daara ju kawe jooju eh, muy kàddu yu am solo yoo xam ne jëw ni nii yëkkati nañ ko fa ci fi nga xam ne jafe-jafe yi am na ak ñoom fi ñu fi ñu nekk te di sàkk mbooleem ku dib taalibe rek wala képp koo xam ne jàmm nga bëgg ak lu baax nga fekk si leen ci lii ñu nekk defe naa ne ñii ku tënku ci ñoom yaakaar naa ne yow coow yeeg yëpp da nga ci mucc tey tamit yooyu da doon seen mbir ndax ñoom seen lépp sëriñ bi la eh, nañ bàyyi ko woon seen i kër wayjur jàng ba egg si foofu defe naa dara soppeekuwul ci ñoom eh, ndakaaroog ni muy mel soppiwu leen te yaakaar naa ku teew ci seen biir danga gis loolu ci ñoom ci loolu lañ nekk di ziar bu baax a baax mbooleem jëwri la ko tàmbalee ci Serigne Cheikh Cheikhouna Fall surtout Cheikh Fall nga xam ne moo leen jiite muy so doom Serigne Sadi Farsaw ak ku ñëw Serigne Mambay Sila ak Serigne Bamba Ndiaye ñoom ñëpp ñu leen ziar xam naa dañuy ànd ba tey ak euh, Serigne Cheikh Fall Mbor ndax ci jafe-jafe yi université yi fii mu toll lu ko jiitu ndax defe naa euh, muy loo xam ne du du hasard daal ndax lu lu jiitu lii Serigne Cheikh Fall Mbor moom defoon moom defoon na amoon na benn gis-gis goo xam ne gisoon na ko ci loo xam ne solution la ci buñ ci toppee defe naa ne dana lii lépp lu xew kon dañuy ànd ak euh, Serigne Cheikh Fall Mbor moom ci gis-gisam ci jafe-jafe yi nga xam ne mooy xew foofu su ko defee bu fekkee élément bi jàpp na ñu ànd waa si ci Serigne Cheikh Fall Mbor. Mhm. réew mi nag dama leen ne man bu ma ci sañanoon baat wala ma di ci wax dara dama leen di wax loi boo xam ne ku toogati ci dañuy wote loi boo xam ne ku toogati ci réew mi rek say doom fii li ñuy jànge ku ci autorité ci réew mi say sa njaboot di jànge fii bu ñu fi doon jàngee université yi dana baax danañ fexe euh, li ñuy séq ak ñoom ñi di ko def yoon wi tege ci yoon waaye buñ fabee bu bu doom yi nekkee ca àll ba di jàng doom yi ci des xam nga duñ leen a jàppee dañoo ne université waaye ay paysan lañ leen jàpp dañoo jàpp ne ñooy kaw kaw réew mi bu ñeneen ñëwee yilifaat leen loolu lañu war a jële ci seen bopp yi ñoom ñi nañ fexe jàng euh, kunkaati man ba noppi fexe bu bokk ci gone yi nga xam ne dama leen étudiant moom daa war a toujours daa war a fexe lu muy étudier di étudier di di tey examen dem ko ci loo consommé wut du sotti ndax bu ñu la ñaanalee ba nga jàll bu fa bureau ba la lay nekk doo jàll nañ fexee njàng njàng mu baax fexee jub fexee yaru ñii itam fexee dimbali gone yi fexee wut ñu mën a jàngale ñu xam la ñuy jàngale ñi ne ca école yi di jàngal gone yi waaye nii boo xam ne ña ca nekk ñëpp fi ne bari na maître yi boo leen laajal seeni elaw duñ ko xam te bu njëkk koo ca xam ne jàngi si woo ñaari fan sa maître dem seen kër laajal lu la dal waaye gannaaw te internet moom dama leen nit ak dof du ko internet la ka jàng ba mën a dem ci internet mën naa jàngal boobu te jikko yu dëng yëpp ci la ñu koy jàng moo tax booy dem ci facebook facebook bi fexeel ba dem ci lu facebook rek ndax loo nëbb ci net bi te du jubi dana feeñ kon nag nan fexe sax ci jub ñiy wote loi boobu kuy nekkati ci réew mi sag njaboot ci réew mi lay jànge nit ku doo daara jam joxe doomam fokk mu mu difa yéene lu baax di ko defal bu ko defee nga ne fii di xeex ak xuloo jàngoo bu doomi kay ñëwee yi li farata du farat seen bopp yi li nañ ci def xam-xam da ngay jàng xam-xam ba noppi jël jikko mu yàqal la ko année balance moom toujours ah, boo ci dëkkee ah, ah, dëkk ci année année balance baaxut ndax wii noir la lay jural année balance moom bu tegaloo wii noir a ji topp dundu gu lëndëm kër te sëñ bi dane man baa anooran bi du jaa fa sëyan nañ fexe ba sun ëllëg baax sun jërëjëf Serigne Cheikh Fall Mbaor tubaarkàlla <laughs> am na solo trop ñu ngi ñaan suñu doo la ko fee yàggal lool te may ko ak wér te kàttanal ko ci léggéey bu am solo bi nga xam ne bi nga koy liggéeyal maamam ju baax ja mu maam Cheikh Ibrahima Fall di ko liggéeyam way juróom bu baax yi nga xam ne tey moo fi toog toogaayam muy Serigne Aliou Fall Mbaor di ziar bu baax mbooleem njabootam gi yëpp nag maa ngi ciy ziar bu baax Baye Mouride Diop ak ak Baye Ablaye Mbaye nekkal ko fii ci Dakar ak maa Imnu Samb ak Soxna Khady Diop ñoom ñëpp tubaarkàlla ñu ngi topp jotaay bu baax a baax ñu leen di ziar bu baax di ñaanal baax sëñ Cheikh Fall Mboor mu doon fee yàgg te ànd ko wér euh, Baye Thiamba dafa mel ni tubaarkàlla dégg nga waxi kàddu yi nga xam ne waa université yëkkati nañ ko ci mm. seen nekkin ngañ nekk foofu nañ fa nekke mm. muy di ci sàkku nag mbooleem ku di donga te ne fa rek mm. nga nga wuy si leen ci ci ci liggéey boobu ñu liggéey liggéeyal sëriñ bi waaye dégg itam sëñ Cheikh Fall Mboor moom gis-gis bi ma am te lii nag moo jiitu lii di xew nii fi ne lii yee ko jiit muy loo xam ne lu doy waar la xam nga sëñ bi mm-hmm. sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh Fall Mbawar yàlla na fa yàgg te wér li di peex di wax ni mhm. baatin ak bëtineen bokkut gisal na lii bokkut mhm. gisal na lii ba teel na jàjju mhm. lu tax ba leen jàjjoo ko nit nit xam nga lan dogal li gis dogal yàllaa dogal bàyyi faali bu ñu toppee sunum jàngale dinañ jëm ca kanam laaj ma lu tax Seex Ibra Faal nee na wax waxaale la waaye jëfay jënd wax waxaale la jëfay jënd bàyyi faal yi ci université danay wax ba pare ëlbatiku jëf xoolal suñu amut lu xëccewun ak ñoom lenn ci seeni campus ak yooyu ñuy jëfandikoo bu ñu bàyyi ba nu lekk ba pare la lanu jàpp ne loolee fee nañ ko jëmee ñu ñëdd ko mu set defar ko mu jekk lekk ko kii nekk na fa di waxa dafa jëf nii gi nu nekk ñu bàyyi leen ko fa dem beru fële moo naam noonu la Seex Ibra Faal doxe woon de di mu ñëwee ci daara sëñ Bàmba ci Mbàkke Kajoor noonu la doxe woon de dafa beru fële boole buub ak root ak taxan yoonu Baye Fall buub root taxat la mooy tarbiya buub root taxat lii mooy yoonu Baye Fall ñaanu werante ca daara yaa ngi yooya moom bokku ca ndax ko dégg nga wax kon ñii waa université def Baye Fall sunu bokki taalibe yooyu yal na leen yàlla jàppale doole seexi ba fulla rek a ngoog loolu rek kay fulla nanu fexe xam ca yal na leen yàlla dimbi nag ba nu xam buñ ko xamee itam yal na yàlla dimbali yàlla noo xam ni am fun ko jëfe ci xéwal gu bari roto ca mu gàdd indil seex yi tubaarkàlla ba tey dañuy continuer sax bay càmba mm-hmm. ndax itam euh, dafa mel ne fi ne fi jamono toll yàgg na ci mm-hmm. ñu ngi fi dégg ay tawat yu bëri yoo xam ne day xew mm-hmm. xëy na sax Sénégal moom dañ koy dégg rek te ñu ngi ñaan yàlla yàlla bu mu fa dugg waaye dafa mel ne Cheikh Ibrahima jàngale woon na ci rek waaw euh, tawat yi ñuy xew surtout bii xew bi ñu tuddee Ebola ki ko tudd obala nam ko seet ya. xam nga nit bu jëkk bu nit ngasee dañ naan diw dafa ngas ya, wala dafa ŋàccet wala dafa xurit wala dafa njàmbutaan mbaa dafa siti wala dafa kuli wala dafa yore feebar bi wàññiku waaye feebar ne càpp nga ne obala kooku de bu noon enquête dina xam fu obala jóge te seex bi dafa wax ne xanaa jàng ñu ah kay mu ne yàlla nee na na ngeen xool ñam bi ngeen di lekk untur fi untur ila taamihi teenoo xool ñun li ñuy lekk lan la ñu ko ah faal loolu mu doon mu ne nit ku ñuul mbub mu ñuul garab gu ñuul ñam wu ñuul nit ku mbub mu ñuul garab gu ñuul ñam ñuul loolu mooy lan moom mbub mu day nëbb si këm nëbbal sa sikk sa mbub mi tey ji man nga am ak moom cent vingt dimanche kenn du leen da ngaa xayee di de moom mii dafa xew rek la ñuy wax ndax nëbb na sikkam nëbbal la sa sikk bu we bu weexee léegi ñu ne waaye yow nag yaa xayati <laughs> kon bu mu ñuul dikk na mm-hmm. ñam wu ñuul ci laax mm. ak ya ca aju ñu ne ko ci rek laax mu ne waaw ndax ku jëggaandi loo lekk boo woppee jëggaandi loo faj ceeb bi dañ koo jëggaandi li ci dem lu ci bay dañ koo jëggaani li ñuy jënd ci sélection yi ci bari dañ koo jëggaani danoo xam loolu lu mu kon unsur fi taam yi nan xool ñam wi ne lekk lanu yàlla digal seex bi xool ba mu jàng taw amut nag xamuñu ko amul lu munta indi ndax li tax amul lu munta indi yaari mbir la ñam yi dañ koo jëggaani indi nu ko xamuñu lu ñu ca def te nag li gën a garaaw moo ñam bi nga xam ne dañ ciy def euh, lii euh, euh, produit boo xam ni nee da mën na koo téye lu tolloog ñaaret ba ñetteet lu lay téye ñaaret ba ñetteet bu ko nit ki lekkee fu mu jëm dégg nga ko ñu ni ko ginnaaw nit ku ñuul ñam gu ñuul mbubb mu ñuul garab bu ñuul mu ne garab bu ñuul sungu fakki jat ak i reen gisoo chinois yi yonent bi ne na ngeen jàngu xam-xam na ngeen jàngee xam-xam donte da ngeen dem ba Chine xool chinois yi c' est très rare nga ci gis chinois buy pikiru wala buy naani comprimé waaw lu tax loolu njàngalem seexi dama fa yegg eh. loolu la nu dund ñoom am xas ay xob ay reen ay meññet ak ci fleur la ñuy dem ba mu faj la ca loolu Cheikh Ibra Fall wax na ko nee na woppi nit ku ñuul la koy faj lépp taladu jabaxu taladu jabaxu ko mën a tënk nag nit ku ñuul daal bu woppee taladu jabaxu ñu ko Cheikh Ibra luy taladu jabaxu naa xamu leen ko doom ah ñun de xamuñu ko faal yaaram mu ne suukarus talsi talsi mu amatut waaye bekk ngi fi ak suukar su mokk si lay dóor daqaar jar bisaab xorompol boole ko njaba waaw li soldaar yi wax njaba waaw boo masaa dem esel daraay tëb ba sonn bu ñëw wala nga dem sanditiir ba sonn boo ñëwee boo lekkee bu doy dañuy jaba dañuy njaba boole ko njaba di ko naan mooy pajum nit ku ñuul kon ñam wu ñuul wi ñëw na mbub mi ñuul mi leeral naa la leeral naa la garab gu ñuul ak ban xanaa bàyyi càmb bi ñuy dese mooy e, ndakaaroo ki xat-xatam waaw lu ko jiitu sax dafa am kilifa gu mag gu ñëw ci seexiw la comme maam seex la danaa dal di bëgg a dem sawu jant mhm. en tout cas sawu jant day gëj naa fa de ndax booba ma nga Thiès Cheikh ibrahim mi ñëw Thiès ñeen fukat ak juróom mbaa juróom wala juróom fukat ak nangam ci la am ci at ci saayir waaye ah te kilifa gu mag man naa la waxtu woon sëñ Mourou Moustapha Mbacke ya. bu daa bëgg dem Dakar waaye dama dégg mag ñi wax ne Ndakaaru day Serigne Touba moo ni iya, ya. Ndakaaru Serigne Touba nee na guddi ma fatliku yëpp guddi Dakar rek la ci fàttaliku fu ñu ko yóbbu fépp dañu bari daal taalibe yu bari sax xaw nañ koo xaw kii ndax euh, ndax saa yu ko sëñ bi yëgee fàttalikoo rek dina am lu mu yëg te dama bëgg na dem ca daal mel na ni daal da cee kiiwul mu ne ko boo demee nee ko na ko lugg na lugg ndakaaru mm-hmm. neen sëñ Bamba na lugg ndakaaru ndax dugub nga fay ñore joo xamante ni ji des na tuuti ci kanam talibé koy gop diko diko gop diko góob di ndi fii ci Touba. kon na ma dik na dan nak ni bay sek gay ndjay deng bay sek gay ndjay bay mu ñang kol bay mu chamat Cheikh Ismaïla cham de nak keur ma sàmbantumaan wo Cheikh Ismaïla joxane bàyyi naas joxaane ak naar mm-hmm. ñoo nga tubaab fa ni mm-hmm. leen ndakaaru dey mm-hmm. ñett nga fa ñett fekk ko fa yóbbaaleel ñett ñett nga fa ñett ñett fekk ko fa waaw yóbbaaleel ñett yóbbaaleel ñett ko ñett yooyu mu ne ko raa ñetti raa ñetti xaaf ñetti keef du juróom ñent mhm. mu nu yóbbaaleel ñett ñetti baa juróom ñent yaakaar naa ne bu ko ñetti fekkee fukk ak ñaar lay doon mhm. at mi jeex rëy gi mooy raa gi rëy gi réer gi ak reewande gi ma nga ndakaar hmm? te wax na dëgg maa seetaan léegi lamp faal mhm. ci yor yor ki ko doon def sax seeta gis naa ko léegi mu wax lu am solo ci dem place di dangal di dangal kooku nekk na ci kooku euh, euh, cël boo ko wax rek mu jaay lag reewante waaw kooku ñetti waaw kooku moom benn raay ñiy dangal ak euh, defar ba mu baax ak ñiy fecc mbombaas kooku ñu ngi ci raa moom reewante gi rëy gi da nga ci woo nit ba mu ñëw mm-hmm. bëgg koo waar ci yàlla mu jublu ci yàlla mu jaay la ak rëy ba yow da nga koy jéppi far Cheikh Ibra Fall nee na ku réew rey sa bopp waaw waaw ndax boo gisee lu nit bu réewee fii léegi gone gu réew bu gisee boo gisee lu koy lor doo ko ni doo ko ni toppal da lay lor da ko naan teel ni kii dafa xamante xamal na ne lii dina ko dina ko dal moo tax mu ne ku réew rey sa bopp kon ak rey dikk na foofu de kon genn ak réer gi ko ëpp xam-xam fop ëpp ko gën ko sëriñ fuuf gën ko judd mo lay jaay xam-xam te boko ko nangam moy la Karl max nee wala Lenin nee na wala Lenin nee na wala diw nee wala diw nee di comparé ño xamni ne ñu bokku ñu aada bokku ñu ciosan bokku ñu sax fu ñu bindé far ndax ké moy roy nit ku wéx la ñun nit ñi ñuul ñun ñoy pire ñoy brique bi asaman sax bala taw da ñu ka bëgg da ñu sëñ bamba ñu

Khat ga akhat ga angaj ga waaw ah, waaw moo ñetti xaat ca xat gi hmm. ni kër yi xate ko raw hmm. tay ji su ma doon tay dana gana ku nekk dakar hmm. am fa ñetti fan rek ñu abilay ah, keur gi bu yaaton bu neegi bari won bilaay man nga fay dekk xamna li am bokk sa bay waa mbaa xamna li am bokk yow <laughs> ngi lay commencé am na fi de soo lo ñu commencé la ngaj gi koo xamante ni kii dafa lay wóor ni lim lay wax gëmu ci dara dara dara dara dara te Seex Ibra nee na bàyyi leen giñ ci turu yàlla ci ay neen te ku giñ ci turu yàlla ci ay neen yow mal xëyaan da nga ko layoog sa borom waatal li giñal la ba nga gëm ko yëkkati sa alal jox ko mu daw kon ngaj gaangoo ngat gi léegi ñu commencé mars naan danoo indone kaniwoo yi dafa fat mbëbës a nga nee ña ngay coow ak ñuy dañuy jël mbëbës yóbbu ko jas ñi ni duñ ko fi jëlee duñ ko fi indi kon ngat gaa ngoog ndakaaru gi yëpp ngatu kese bëgg mucc ci obalaa dinañ ci mucc sax naa ci ñëw dinañ ci mucc yaa kon xaaf yaa ngoog ndakaaru ñu ne ko ah, mun na ñetti keefa nga fa ku wax ñu bind mhm. ku jëf ñu fay la mhm. ku yéene ñu eggaleel la kon lan la ñuy jëf ah lan la ñuy wax bindkat yaa ngi wax rek ngi naan seen pilim rek di waxal nit loo xamante ni lii dara amu ca di ko bind loo xam ne dara nekku ci ginnaaw ko wax ni bind na wax ci Seex Ibra ku jëf ñu fayal nañu jëf ci Seex Ibra ku yéen ñu eggale nañu yéege ci yéene ci Seex Ibra mu jaale nu ci sëñ Bàmba baa gi nag la ñuy musal nag ca xat gaa xet gaam xaj ga ak rëy gi riir géeg reewande mm-hmm. ak ñetti keef yooyu mm-hmm. mu ne ñetti baala da ngay bàyyi biddanti waawaaw mm-hmm. waaw teel a jóg teel bàyyi werante bàyyi teesante boo biddantiwut doo dégg looy looy werante naan ah ma ko wax de waxuma ko de ndax ñoo ngi lay woon ngoj gi ci ndakaaru <laughs> boo biddantiwul rek doo ko dégg boo werantewul doo teesante lii Seex Rafaal wax kon Baye Fall bu ne ak te jamono ba mu koy ak ak jamono ji nga xam ne fi ne fii daanaka tey taxoon mu di ko wax ñëpp ngi téesante télé boo dem ñu ngay téesante ga werante njàngale mi nag li sëñ bi wax sànq ci kunkaati man dañ ko war a dugal université li yàq dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg sunu université yi ak sunu jàngalekat danoo jàngalewul téere waa réew mi nan waxante dëgg tegal foofu sa loxo tuuti waaw ñu dem ñoom ci publicité yi <laughs> ci tubaarkàll la waa parce que am na solo mbay wër naa la sa place ñu ne ma nekk wër naa la ci dëkk bi yëpp yow xanaa waxuma la sama ngénte bi du xaar du ceeb du dowle yow di nga yëngal sama asma ma faatu jox ma sama xaalis rek suma ma dee rek yaa ma rey bàyyil fa mu fekk ci mbedd ndakaaru njaay di ma toroxal waaye de moom ay nawle li lan la jox waa jox ma sama xaalis xaaral ma woote nga jot sa xaalis oui ma jàmba santal bi matu ko yónnee ma sama xaalis nag ci nu ma gën a gaawee gisal gisal xam nga lan la man sama yoon nekkul ci réseau bu gàtt ak bu ñëwul bu yéex ma loolu jëntu ko sama xaalis bàyyee maa ko moom ngir yàlla bay problème réseau mooy lan ah lam falkas nekk fii booy envoyé xaalis léegi booy dem léegi di ci jot mu am problème la na ko envoyé lam falkas na ko envoyé lam falkas dégg ko nag lay jeex nag lay jeex nag yónni ma suma xaay ci lamp fal kaas lamp fal kaas ñëw wala jeexul waaw kay sëñ bi dégg naa bu baax li ngeen wax ca lamp fal kaas laa jóge léegi léegi amul benn jafe-jafe wóor na gaaw na te it leer na te man moom laa taamu nañ dem xoolal li ma la waxoon dëgg wax nga ah? naa la foo dem di ma fekk lamp fal doo nekk di wër ba sonn lu ne fam soxla ci kenn du ko jeex sama mandat lay jël si ñaar fukk ak ñaar fanweer juróom fanweer ak juróom benn allahu akbar lu ma la waxoon ma ne lu la fang laax kenn du ko jeex waaye lamp ba tàkk na waaye ku gis nen nel ne nañ ji rek ak lamp faal kas lamp ba tàkk na kon daf fépp ay leer li nga wax dama la ci takkal médaille laa wax te li waay am doxal foo jëm yóbbaale ko foo jëm rek yóbbaale avec lamp faal nii tout est possible lamp faal kas lëkkaloo ak banque UBA ak réseau ATPS indil leen xéwal gii lamp faal kas ak a jege askan jërëjëf Rési tubaarkar la bàyyi càmm kon daa mel ne kaas du ñëw na ah man de leen xamal naa la ko xaw ma ko moom làmp faal kaas de waaye ñun de fee ñu dëkk ci Socabeg hmm. lu nuy jëli lu ne hmm. ku nu ci yónnab xaalis hmm. ñu nga jëm ak moom teewoon pël wala fa ko sori wala fa ko gën a sori waaye li commencé Socabeg ba ba nga dem ñàgg ba ñàkku rab amuñu fenn ñun fu ñu jëlee xaalis kon làmp faal kaas nan andil nag ah, ah, ah, làmp faal kaas fee ca Socabeg Mm-hmm. sokaa beeg nag mm-hmm. uh, tuddatuma ko sokaa beeg sooga beeg laa ko tudde waaw ca boo kaas lamp faal kaas ñëwee rek mu tudde ko sooga beeg te mm. ku jël sa xaalis ak kasa mm. kon nay lamp kaas kay na ñëw nag wax dëgg yàlla amuñu ko de aw mu ko moom waaye nanu ko ndil <laughs> ah, nag ñu yónnee nag mm. suñu addiye cay jël siit ay addiye ah, foofee waaw looloo ci dàq sëñ bi ah. waaw léegi nan nu andil nag sokaa beeg soriwul ceewoon pël rek boo fa ñëwee rek gis na ci ginnaaw na waraa bi ñoom soxna Gabi ñu ngi lay dégg nan nu fa dimbali waaye nan nu dimbali ci làmpal kaas ñëw kër naag si naag si jàmm sëy naa ah, li moom moom yaakaar naa li

am dañ koy sant di ko gërëm bu baax mm-hmm. ndax soo xoolee tënkuk Cheikh Ibra bi mu tënk mm-hmm. ci araf yooyu nga xamante ni boo ko adadee day mm-hmm. doon fukki araf ak ñaar maanaam ci lim war a tolle fukki weer ak ñaar bu yàlla eh, dimbalee la maanaam nga ñëw fii Ndakaaru nar ka fay def boo wattandikoo yii de sukkandiku si bàyyi yi nga wax. ñetti bàyyi ñetti bàyyi yaakaar naa ni eh, sa mm-hmm. sa sa dund mën a ñoŋ bu baax a mm-hmm. baax ndakaarook fu mel ni ndakaaru mm-hmm. ndax lii sama waxi bopp la damaa jàpp ni ba muy wax ndakaaru sax liñ si gën a jublu mooy dëkk yi nga xamante ne danoo ba seen cosaan maanaam ñëpp dëgmal ko dëgmal ko mu doon ay eh, dëkk yoo xamante ne fi mu ne nii mag na màggaay boo xamante ni daanaka dundug tubaab ak dund bu bokkul ak seen dundug cosaan la ñu dundee kon nu bàyyi ko xel bu a baax dellu si si li mu doon wax sànk rek nii jot na kon mhm. njàngalem Cheikh Ibra ak njàngalem Serigne Touba Xaadim Rasul daa mhm. ci man mu mhm. doon ay bayit yu gàtt yoo xamante ni buñ ko dugaloon biir université mu réglé coow li ndaxte université ñett ñii ñoo ko seq muy étudiant bi ñëw di sàkku si xam-xam ki koy jox xam-xam googu mhm. ak nguur gi nga xamante ni moo leen di yombalal mhm. seen sàkku xam-xam googu ak ñi leen jox xam-xam mu yombalal leen ko bu baax mhm. te ñooñu soo xoolee ku si nekk Cheikh Ibrahima wax naa ak ñoom ndax suñ Cheikh Fall Mbaor soo déggee waxam ju solo ji mu wax mu ne jot na ñi nga xamante ne ñooy nguur gi ñu daal di euh, kon euh, wax benn loi boo xamante ni képp ku yorati poste de responsabilité maanaam doon kilifa si biir réew mi ñu si signé sa doom di jàngee biir université ah waaye waaw waaye bu ñu ko defoon nag wax dëgg yàlla du duñu suñ demul biti réew di jàngee université dinañ xam ni seeni i njabootam fa bu boobaa li ci war yëpp dinañ ko def xam nga lu waral loolu seex ah. dafa wax ne leen moytu boot nit mu màtt leen boot nit mu màtt la boot nit mu màtt la mooy di lijjanti nit ba nit ki taxaw mu war la réew bi danoo taxaw lijjanti ay nit ba nu samp ñu ñu ëlbatiku ba mu wax leen hmm. waaye lii sëñ Seex Mba war wax bu fekkante ne ministre la wala directeur de société wala lu mën a doon sanuy doom yëpp nekkandoo ci biir université wax dëgg fa yàlla duñ leen sàggane ci la nay lekk duñ leen sàggane ci lañ leen di fay dégg nga ko ca loolu itam ci njàngaleem Seex Ibra wax na ko ba tàyyi dégg fii dama ne la Seex Ibra Faal nee na wax waxaale la ku jëf jënd waaye jëfay jënd kon Baye Fall ci université ñoom ñu ngay jëf mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngay jënd mm-hmm. kon ñoom ñu ngi jëfee li Serigne Touba doon wax naan bu leen ba jàmbat waaw waaw laa toog chez chaque fois foofu mu ta jalli daal xattaa tayun naa si ànd ko mën a xam nga lu waral loolu doomu aadama a muñ ndax yàlla mooy la xadd fi kabadin maa la bind yow doomu bi ci coono moo tax Cheikh Ibrahima mën a jàngale nee naa coono boobu na ngeen ko muñ de muñ googu yàgg-yàgg bànneexe ciy tegu de ndax ba mu waxee loolu dafa ne inna la ma sabirin mm-hmm. ku muñ ma ànd ak yow cheikh bi nee na ah na muy ànd ak yow mm-hmm. dina rëy loolu de ñu ne ko nu mu doon mm-hmm. nasr min allahi wal fatu xaribun wa basir min al muminin geej gu mag lay doon dara du ko tiit dara du ko baare dara mënu koo téye kon dandi lay muñ nit ki dafay muñ muñ nag du ko jóg man ko waaye buñ la yaree ci muñ tarbi la ci muñ ko man danoo war a set université set fa nak sax nak ay bay fa li fay tarbiya mhm. waaw tarbiya lu bax la mhm. ndax jang bax na lol ndax deng musa Ka ma ngay wax nan ana de ku deti lamp faal ma fentoon tarbiya mhm. ah, nanu set tarbiya nanu set yoonu tarbiya do fi gis mukk ñi jang tubaab ñu ñi ñu tarbiya ci français do gis ñu gerew soldat mas nga ko gis fu muy gerewee ak fu muy marché do ko def dañ leen tarbiya ku dem Dakar bangu wala nga dem enawa mm-hmm. wala nga dem ensowa mm-hmm. bo fo jógee mm-hmm. de nga tal lenen dan lay yar <laughs> kon quartier mourid bay faalee ko mooy kon li ci njàngale mi ba tey yal nanu yàlla loolu dimbali nag ah, ma ñew ba ci cheikh ibrahim mi bëgg ni bay ni bëgg bay fal faal liggéey li mu amon ci kër am kër ndax am kër am kër jurbel am na kër ndakaar te lu ci nekk liggéey rek ko taxa moo taxan mu samp ko ba tey ji mu ñibbi fekk sangam bu baax ba fee nga xool nga waxan ci ñetti ñettam yi comme ni ma la ko waxe sànq lépp ci yoonu njàngaleem yi la bi li ñu wax obala nag dafa naa njortu lu fi dugg hmm. waaw ndax cheikh sidi mukhtar yalla na fi yàgg tëwér ay fana nga leen digle na sax mhm. digle na ay ñaan mhm. subhana khadim rasul mhm. subhana ko tok la lax man fi jataay khadim rasul legi sat nako ba tax mu digle kon bu digle nañu jëf bu na bay motax new ma ñepp jëf na da waaye li ci jëf akas néew nit mën jëg yobu way lu ko taxut a jóg mën nanoo yóbbuwaale ñi ñu jot jëf kon cheikh sidi mukhtar yalla na fi maa ngi siyaar itam doom ju baax ci Kiné Sarr mm-hmm. soxnaa si ko nel lu mbarke Dieng xam naa soriwu leen mm-hmm. ku baax la maa ngi koy siyaar di siyaar borom kër ah. bëggoon naa mm-hmm. soo xoolee lu toll ni jamono fu mu toll jamono ji ndax xam na ni njàngiram Cheikh Ibra génn na suñuy frontière te xam nga ni euh, daanaka àdduna bi jaxasoo na foo toll bomb yaa ngi fay kalaate jàngaleem Cheikh Ibrahima ndax am suñu si sukkandikoo si ñooñu dinañu war a mun mucc si jëy ji nga xamante ni foo tourné si àdduna bi daanaka rek jëy jooju mu ngi mu ngi rek waaw loolu Cheikh Ibrahima waxoon na ko noonu na foq naa ndëndum maa moom foor ndëndum yaa may moom kon moom wóorul rek xeex rek hmm. waaw yéen ci yàlla kon yaa may moom ji ba mu ko moo kenn ñi muuta moom kenn ñi léegi jaay di la yaa may moom ba mu fuqee ndëndum maa lay moom foo ndëndum yaa may moom ba mu jébbuloogul la waral nag yoor génn gàddaay maa leen di moom waral tubaab bi xeex ak moom deqale xeex ak moom fu nekk tubaab bi ne ko maa lay moom maay moom kajoor mu ne ko doo ko moom waaye ba seexiroo sukkee jébbulu ne yaa may moom yow xaadim rasul ndax dinge nga wax woyo nee na mas nay xibaaru njébbalam bay wax ne yàlla ma ko moom moo ko xamal moo ko yebal ci sëriñ bàmba ne ko mooy ki lay moo la moom ba ko yàlla waxagul seex yi seex yi nu nga gudd ak moomeelam ak sëñ bàmba ba bu set ñuy xare nga xam ne ko moom nit kon da nga ko rey mbaa nga rey bokkam mbaa nga rey bokkam doo ko moom dégg nga na nu ndéem xar na nu caax réew xare na nu xasar na ca njaandee mi ngi fii ci Bambey fu ne tubaab bi ak Lat Joor xeex na fa ak sénégalais yi kese buur yi kese di xeex maale moom dooma moom waaye ba Seex Ibra di Faal dikkee ndëndum maale moom da ko dal di foq dal di foor ndëndum yaa may moom mooy sukk jébbalu tubaarkalla dafa mel ne waxtu wi waaw daf ñoo dab ah. xam naa daal li li nga jubloo wax dëgg dëgg daal mm-hmm. moo mooy mooy ki fexe ba suuf gënal mu kaw daal mu ko doonee sant Cheikh Ibra Fall alhamdulilah alhamdulilah <laughs> waaye ba mu koy waxee itam dafa am lu mu ciy wax daan ne góor mag de saay-saay boobu bañ na mooy Iblis moo tax dina jël kuram googu fu mu ko dóor mu tàkk mooy bomb bi sol-sol yi tey yal nañu ci yàlla mos léegi li ñu bëggoon nga tënkee ko nii rek mm-hmm. ci ci loo xam ne euh, da koy conseillé ci ndaw yi ndaw ñi nga xam ne ñi ngi fii ci fii ci Ndakaaru mm-hmm. di tuddoo Baye Fall mm-hmm. te di tox lu bon di naan yooyu defe ne mooy ñi fi Baye Fall te Baye Fall ñëwul foofu. Baye Fall lan nga leen di dénk xam ne li ma leen di dénk. Hmm. mooy loolu ñuy tux hmm. naan ay Baye Fall lañu du ñuy mooy bàyyi lu bon. Hmm. bëgg lu baax aw ci yoonu baax ndax ki nga xam ne moom nga jébbalu ci moom. àddina ak àllaaxira fekk ko mu koy def doo dégg mu di ko digle kon soo ko fa nee ñu Cheikh Ibra ni la fa ñël nga dem nag di def leneen ak leneen ak leneen yaa ko defal sa bopp waaye Cheikh Ibra Fall tux santaanewul mandi santaanewul def leneen ak leneen li mu santaanal tegu ci jub siraatu mustaqim ba nga xamante ni bi yaay julli kat baay julli ni ihdina siraatu mustaqim yàlla maa ngi lay ñaan kat nga awale ma ci yoonu jub yoonu jub woowu ñu ne wan la siraatu lisina an amta alayhim moo yoon wa nga xamante ni gaa yi nga xam ne gërëm nga leen bokku loona xayul maxdub ak wala daal ñu aw ci xayril maxdóob mooy yahud yi ak nasaraan yi nga xam ne ñu ngi soppi ay quelque doomu aadama naan leen mel leen nii di tuddoo Baye Fall déedéet Baye Fall du mandi du mandilu du fekk fu dee mande boo ko defee yaa ko defal sa bopp waaye sëñ santaani ko tuxut lu bon demut fu nuy defe lu bon ndax talu ko talu ko waaw lii rek yaa ngi dégg xam naa nga tàggatoo ak mbokk yi ñu maa ngi tàggatoo ak mbokk wa lampu tv mm-hmm. di siar bu baax sëñ am di jeuwriñ di siar sëñ mbacke fall mm-hmm. wa dama domi sëriñ sëñ fallu fall mm-hmm. di siar itam sama bokki tul yep ak sama bokk ngame yep ci siar sama yaay jaaye wad ci koy ñaal yalla sama borom doli ko leer fu mu tëdd eh, yal na ko àllaaxiraam gënal àddinaam ceen di ñaal yeen ñi ci yelwaan ci ñaan ci saraxu ci majjal lamp fall kaas na ñew fee nan ma ci dimbali su ma génne woon leen ma ki woon ma làmp falkaas mm-hmm. ma yalwaan ko màjjal ko ñaan ko moom dum làmp falkaas fee mm-hmm. cité Socabé jërë géen jëf wasalaam jërëjëf kon uh, Baye Thiamba Thiam mm-hmm. sant ko bu baax a baax gërëm ko ci woyof te beeg lépp rek ak taxawaayam bu rafet uh, ci uh, liggéey bi kon mbir maa ngi noonu ndénkaane maa ngi noonu seen maamu xam nga ni tey euh, dañuy insister waat ci ndongo yi nga xamante ni ay étudiants la ni seen moroomi étudiants yi nekk ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar tey wéyee njàngale Cheikh Ibra ndax teg ñoom yemuñu sax ci euh, jaar yoon bi ñu jaar yoon bi ñu tegu ci yoon waaye fas yéene nañ sax ni ku gaaw bi ñu ñëw amal bis boo xamante ni bisu toog la xalaat yan pexe la ñu war a mën a proposer kilifa yi biir université mën a génn si ay jafe-jafe yi te boobu fas yéene lañu tënk si këyit yoo xamante ni njàngalam Cheikh Ibra la suñu fa jaaree université yaakaar naa ni jafe-jafe yi mu nekk dina si yàlla ci yàlla yóbboo jàmm waaye xam nga ni beneen bis bu ñuy euh, dëgmal di bisub euh, kon euh, ndar bi ñaari rakkay ndar yi xam nga ni Cheikh Serif Hassan Fall naaru Kawsara moom la ñu tuddee kon ngontum Cheikh Ibra yi ñetti fan si weeru septembre le 3 mu mel ni njabootu Cheikh Serif Hassan gépp tey ku déglu bàyyi Baye Ibra Baye Moustapha Baye Moustapha Seck ak euh, Baye Moustapha Dia ci suba mm-hmm. euh, ci rajo 97 Baye Ibrahima Dia mm-hmm. euh, ci 97 point 4 mm-hmm. waxtaan nañ ci waxtaan wa am solo soññee njabootu Cheikh Ibra gépp ñu ngi kon daje kër Cheikh Sirif gi nekk Touba ngir nag dajeek ñiy jóge soowu jant lu mel ni Thiès ak Dakaaru dajeek ñoom Louga ci Carrefour bi def seeni convoi mën a dem foofu ca Ndar Géej lépp rek ngir sargalaat bu baax a baax maam Cheikh Ibrahima Fall yaan si yàlla yóbbu jàmm ziar si nag maam Lamp Fall mu Cheikh maam Gunda Fall moom Cheikh Serif Assane ak soxna Jëbbu Fall moom Cheikh Serif Assane mu ngi koy ziar ak mboolem waa kër Cheikh Serif Assane mu ngi leen di ziar bu baax a baax sëñ Mamour boo ne ko mayee ñu tëjee bàyyiwaat xel bu baax a baax kun kaati men mhm. kon dagaan mhm. ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi mhm. xam naa ne ñoom étudiant Baye Fall yi dinañ si dëkk ngir xalaat nan lañu boole ko si li ñuy xalaat ngir proposer ko kilifa yi dañ ko jàngale si biir université ndaxte bayitu gàtt la waaye daal tënk lépp lépp lépp ñàkkul ni télé bi dinañ si ñëw benn jotaay gën ko leeral di la jaajëfal bu baax a baax seen maamu di jaajëfal mboolem mbokk yi ñu doon teewlu di wax rek waa xiw daa am ne alhamdulilah jërëjëf Seydina Alioune jërëjëf Baye Thiam baax a baax euh, di ziar bu baax mboolem ñu doon topp jotaay bi rek ku ci ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax Baye Mouride Diop comme ni nga ko waxee léegi Moustapha Thioum Fadia ñu ngi koy ziar bu baax di ziar soxna Ndeye Fall euh, soxna Fall a baax ci jotaay bi nag soxna maam Fatou Diouf ñu koy ziar fële ca Sikap rond-point Sikap ñu ngi ziar bu baax a baax mboolem ñu doon topp ci jotaay bi yëpp tey ñaan ci barke Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra liñ ciy topp rek yàlla nañ ci dajee ngërëmam maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine di ziar bu baax euh, Abdallah Baye Fall moom tamit di jàmbaar dëgg jàpp ci liggéey bi ak sëñ Mbàkke Madina Seck di ko ziar bu baax te koy ziareel bu baax soxna Ndey Fall mu sëñ Cheikh Fall Baye Góor di ziar bu baax a baax euh, sëñ Assane Fall sëñ Alay Cheikh sëñ Matar Zeto suñu laaj ñu leen di bu baax ñoom itam jàmbaar lañ loolu ci liggéey bi ñoom ñoo jàppandil gis nga euh, ba ba liggéey bi mel nii war a mel lépp tubaarkàll bàyyi càmm te ñaanal bu baax a baax kon euh, def